annonceurs et les techniciens aussi qui ont cessé toutes leurs activités pour venir témoigner leur solidarité et leur compassion à notre consoeur Maïmouna Ndour Faye. Et vous di dit ici, ñëpp wax nañ que euh, c'est une grande dame ki s'est battue ba yegg fi mu yegg tey et donc dañ ko ameel njukkal parce que bi mu lëndëmee bokk na ci ñuy ñemee ba xuus tey ba yegg si fii et agression bi mu dund nag je pense que mi ngi wax na ka ñeneen aussi wax nañ ko et su nekk ñi ngi woote mobilisation ñi ngi alerte di wax maanaam que liiraam ci ñag bi la jëm et dégguñu ñu et li ñuy xaar ci mobilisation ci confrères yi ci conseils yi gisaguñu ko il faut se dire la vérité te ku ci nekk nag mën na la daal ku ci nekk mën na nekk victime li ñu desee mooy nañu booloo nekk benn comme nañ ko daan defee en 2004 comme nañ ko daan defee en 2009 avec le CDPJ moi je pense que depuis le CDPJ on n'a plus connu une grande mobilisation de la presse et pourtant c'est maintenant qu'on est plus nombreux il y a trop d'intérêts en jeu il y a trop de mesquinerie et il faut que ça cesse c'est ça la vérité il faut que ça cesse ñu nekk benn xàccandoo dóorandoo mais il faut pas qu'on trouve des prétextes ay diw warul woon defee nii warul woon waxee nii ainsi de suite suñu métier bi ala kuli ali boo defee sa liggéey correctement da nga égratigner kenn ala kuli ali soit muy pouvoir bi wala muy opposition bi wala muy keneen et képp koo égratigner ku nekk jour boobu lu ne da ko dégg mais na nga xam ne sa liggéey ngay def moi ici avant 2012 lu ne wax nañ ma ko. que je suis anti-PDS, je suis anti-WAD, comme ça. Et pourtant, toute ma famille est libérale. Je faisais que mon travail. T'as dit, on me taxe quoi d'anti-pouvoir euh, pour passer ainsi de suite. Je m'en fous. Moi, je fais mon travail en âme et conscience. Je m'en fous de toutes les autres considérations. Parce que l'immosoral, moi, monter de nanelao. L'immosoral, moi, madame, la ligne éditoriale de mon journal ne dévie pas. Et je pense que quand même, tey jii nii bu leen ci ne tey da nga war a dëggu wax li nga bëgg war a wax wala li nga a wax ngay xalaat génn ñu dóor la bal wala ngay xalaat génn ñu jam la paak comme ni ñu def may mun a loolu garaaw na et li ñuy def may mun a def ñooñu bu ñu amoon fi dëgg dañ ko def góor seen moroomu góor ni ñoom boobu ñu xam ba ay góor lañ wala wala lan lañu parce que xool jigéen ah di wàcc otoom di ñibbi moom kese nga def ko li nga ko def man de ku ma fexeel ku nekk na xam ne balaa ngay yegg si da nga tëdd ça moom c'est clair waaw et j'ai pris mes dispositions et ku mu mënti doon nag merci